amintenoor yu Dakar direct nuyu nañu leen bu baax a baax di leen wax dal leen ak jàmm euh, ci li nga xamante ne moom mooy seen actualité yu bësu tey bii ñu daal di koy rek fas yéene doore ak li nga xamante ne moom mooy examen bu BFM atum 2024 ñu doore ko nag démb ci territoire bu Sénégal tey jile nag ab insolite lañ ci nemmeeku fa nga xamante ne moom mooy ci diwaanu Mbàkke gannaaw rek li nga xamante ne moo jëm ci baccalauréat atum ren bi ñu gis nag am na ci ndongo yoo xamante ne dañu doon tricher tey jile Dakar Dakaractu daan nay dellu siwaat ci benn candidat boo xamante ne doon na tricher ci bile examen nga xamante ne moom mooy BFM gannaaw rek li nga xamante ne mooy ay dogal yu ñu jëloon mu jëm ci bile examen ak tere yi nga ne defoon nañ ko ci bile examen teg nañu loxo beneen candidat boo xamante ne nag mu ngi doon def lii di BFM ñu bettu ko ba ñuy composé li nga xamante ne moom mooy SVT ci la nag doon tricher ab groupe WhatsApp la tijji woon boo xamante ne fukki doomi aadama ak juróom-ñaar ñoo ci nekk surveillant ba gannaaw rek ba triché ca la ñëw nag daal di janoo ak moom ñu dàq ko ca gannaaw ba nag nekkoon génn li nga xamante ne moom mooy centre boobee du eggali li nekk instruction boo xamante ministre de l' nationale moo ko joxe woon képp koo xamante ne da ngay ko def defoon ci examen bi nga xamante ne moom mooy bac la ñu koy fas yéenee defewaat booy ne moom mooy bépp examen fi ci diwaanu Sénégal dañu lay dàq loolee nag nekk benn cas tricherie boo xamante ne ci examen BFEM atum ren bi li daan nañ koy nemmeeku mbir yi nag mu ngi xew woon fa nga xamante ne moom mooy ca diwaanu Mbacke ca école Maam Cheikh Anta Mbacke mu nekkoon nag centre boo xamante ne mu ngi ci biir école boobee foofee nag la li nga xamante ne moom mooy lii di tricherie bi amee woon ci examen bi nga xamante xamante ne dafay nag lakk bu métti boo xamante ne daal dinañ koy nag nemmeeku ci autoroute à péage axe jàpp fi nga xamante ni moom mooy AIBD ca sorti fi nga xamante ni moom mooy Lobat Fall foofee nag tey dem bi ak dikk bëri woon na ay jafe-jafe li koy waral nag benn accident moo fa amoon nee nañu nag benn camion poids lourd moo doon ba saaraan ba mu saaraanee nag ci li nga xamante ni moom mooy oto boobee tàmbali di attaque incident boobee mu ngi amoon tey bi midi daal di tegale fanweeri simili mu defoon nag ay perte perturbation yu bëri eh, ci li nga xamante ne moom mooy oto yi ak li nga xamante ne moom mooy autoroute à péage bi day tax na sax eh, a faral nañ di ko gis ci axe bi nga xamante moom mooy AIBD Dakar mu nekk nag loo xamante ne ne guleet ñu nemmeeku ko fa li nga xamante mooy incident boobee taxoon na nag ba ñu tëj li nga xamante moom mooy sortie boobee doon jaare fa fa nga xamante ne moom mooy ca diwaanu Cambérène ñu wax ci li nga xamante ne dafay série de démission yu ñu nemmeeku ah, ca télévision boobee nga xamante moom mooy chroniqueur bi di Cheikh Oumar Talla gannaaw rek série de démission yi nga xamante ne gis nañ ko ca groupe boobee di D-Media bi la yoon nag moo daal di nag génn ca groupe boobee nee na dafa tekki li nga xamante ne moom mooy tablier wan leen gannaaw ndaxte nag dañu ko mettroon au frigo maanaam nag boolewuñ ko woon ah, ci nag voyagé woon ci réewum France ba mu ñibbisee ah, ci la gis ne nag boole wuñ ko benn yoon ci liggéey yi nga xamante ne dañ koy amal ci diwaanu Sen TV nee na nag na fa lool ndaxte nag atum 2017 ba léegi mu nga fa di fa amal ay chronique ah, nga xamante ne moom mooy Sen TV ndaam day toog këram ñu koy fay salaire am salaire boobee jàpp na ne nag du ñaqam buy toog ñu ko koy jox loolee du ko nangu benn yoon ba mu nag xoolee li nga xamante ne moom mooy programme bi gisu ci boppam si la nag présenté li nga xamante ne moom mooy lettre de démission mu nekk nag démission boo xamante ne daal dina koy xamle tey ci site d'information boobee nga xamante ne moom mooy sans limite ñu wax ci li nga xamante ne dafay jiya bu metti boo xamante ne tey jiile ci suba gi askan bu caaroy sur mer daal dinañ koy yeewoo ñett ci seeni doom nekk ay tout tànk ñoo génn àdduna xale yooyu nag ci xibaar yu ñu jot nee nañu démb ba nekk ca diwaanu caaroy sur mer ñu leen di wër RFM moo joxe yi li xibaar nee nag ñett xale lañu kenn ki di wuyoo ci turu Maymuna Ñaa kenn ki Baye Daouda Diop keneen ki nag di wuyoo ci turu Mamadou Mar nee nañu nag seeni at mën nañ ko xayma ci ñeent jàpp juróomi at ay xale yu ndaw lañ yoo xamante ne démb ba 11 heures jotee ci la ñu réer tey jii nag ci fajar ñu fekk leen ci benn woto boo xamante ne dafa pan nekk ca koñ ba sorewul lool fa ñu dëkk nee nañu nag tis boobee la ñu yeewoo ci bésu tey bi circonstance yi ñu leen fekk nag doy na waar lool xamuñu ndax dañ leen a faat xamuñu nag ndax xale yooyu dañ doon foo ba dugg ci li nga xamante ne moom mooy woto boobee waaye nag kenn ci xale yi nee nañu nag waajuram bu góor àdduna ca mbir ya la mu xamle mooy nag loolee jàpp nañ ne nag xale yi dugaluñ fa seen bopp ndaxte nag maalu woto boobee dafa diis lool bu ñu ci dugalee seen bopp dina ko jaaxal lool ba mu ñëwee gi sapeur pompier ngir nag saytu xale ya bàyyiwuñ ko xamul nag ci yan anam la ñu génne àdduna xamuñu itam ci ban melokaan la xale yooyee nekk ba ñu ko dékkee micro loolee la daal di xamle lu ci mën am jamono jile dañuy sàkku justice def li nga xamante ne moom mooy liggéeyam enquête ba njaboot yooyee nga xamante ne laale nañ ca mbir ma jàpp nañu ne nag xale yooyee dañu leen a faat mu nekk nag loo xamante ne wax nañ ko ci bésu tey bi li nga xamante ni tamit moo daal di nag metti ci mbir ma mooy xale yi nag ñoo bokk benn famille maanaam rek ñoom ñëpp ñoo bokk benn kër nee nañu nag démb dañu demoon seen kër tante yóbbu li nga xamante ni moom mooy añ ba ñu dellu si nag ci la gis ni nag bisewuñu boobu ba léegi ñu leen di wër seeni photo ñu partagé woon ko bu baax a baax diggante démb ak tey ci biir réseaux sociaux yi daal di koy ci groupe boobee nga xamante ne moom mooy trouvé ou perdu waaye nag boobee ba léegi ñu ngi doon wër gisuñu xale yooye nee nañu nag gannaaw ba lañ leen fekk ci woto boobee ñu daal dee nag ñàkk seen bakken ci anam yoo xamante ne nag tey na xel lool ba tax na sax jamono jilee dañuy sàkku ñi nga xamante ne ñoom ñooy yoon ñu def seen liggéey ci mbir yooyee ñu daal di dem ca réew moom yi nga xamante ne moom mooy Niger foofee nag jamono jii le fukki doomi aadama ak juróom day soldat ñu fa génn àdduna mu nekk nag loo xamante ne sorewul lool dëkk boobee nga xamante ne moom mooy Burkina Faso nee nañu nag ay jihadiste ñoo amal yi song mu nekk nag loo xamante ne dañu koy ñaawlu bu baax a baax démb ci altine jii li ñi nga xamante ne ñoom ñooy force de défense et de sécurité yi daal di amal ay opération ba tax na sax ñu daal di fay faat ay homme de tenue nañu nag mbir yi tey jiile le ministère de défense daal di xamle li di mel ci ab communiqué boo xamante ne jàllale nañ ko ca télévision nationale boobee nekk ci réewum Niger ne nañu nag fukki soldat ak juróom ñoo ci génn àdduna ñetti soldat ba léegi nag kenn xamul fu ñu nekk ñu ngi leen di wër fukk ak juróom benn ñoo ci jëlee gaañu gaañu metti jamono ji nag yóbbu nañ leen sa l'hôpital ngir saytu leen songu yooyee nag la ñu jàpp mooy état islamique ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy alqaida ñu amal nag yile songu ba tax na sax ñu ngay fàttaliku ne yile attaque nag gisoon nañ ko fii gannaaw rek ba ñu amalee li nga xamante ne moom mooy coup d'état ci 26 juillet atum atum 2023 ci la nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy militaires yi jëloon lii di pouvoir bi boobee ba léegi nag bi la mooy ñaareelu attaque yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci réew moom mooy a baax na réew moomee nga xamante ne moom mooy Niger laale ak fa nga xamante ne moom mooy Burkina Faso ba na sax autorité jamono ji la la ñuy sàkku ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy askan bi mooy ak dal ñu dalal seen xel ñi nga xamante ne ñoom ñooy l'armée yi ak kilifa yi lu ca war ko def Askan ba ki fi nekkoon njiit bu di Lat Diop nekkoon àndandoo président Macky Sall jamono ji ñuy wax ak yéen mu nga fa nga xamante ne moom mooy gendarmerie bu Kër Massar mu nekk nag dossier boo xamante ne benn àndandoo mu ko jotoon daf ko dénkoon benn milliard boo xamante ni ci ab mallette la ko defoon dénk ko ko loolee nag nekk ab révélation boo ko ciy tuumaal ab vidéo la def boo xamante viral na lool ci biir réseaux sociaux yi tax sax ba procureur de la république autosaisir ci li nga xamante ne mooy mbir ma jamono jii ñuy waxee ak yéen Lat mu nga ca gendarmerie bu Kër Massar ñu koy déglu nag ci li nga xamante ne moom mooy coowal benn milliard boobee mu nekk nag coow boo xamante ne tey jii la lañu ko jot rajo Futur Media ñoo xam ne bii de xibaar. sunguf si nag damay teel a xamle ne lu naqaree liggéey la ndax composement yi muy àndal da cee am yoo xamante ne ni yu jafe jafe la su ngeen xoolee fan yii yëpp ñoo ngi fii ci diwaanu Saloum foofu lañ ko liggéeyee. foofu lañ nekk jamono jii waaye képp koo xamante nii fexe nga ba jot ci as comp lu mu tuuti tuuti nga sangoo ko ñetti fan képp incha allahu taala waxuma la ni muy dindee lépp lu nekkoon ci sa yaram tey xeeti gàllankoor rawatina njabar wala rab ak ngelawu seytaane waaye képp koo xamante ne nii mu ngi lay jéemal lu bon di ko jëme sa kaw kooku yërëm naa ko waxuma la lu la waaye def mu dellu ci moom waaye na muy delloo ci moom day mel ni bu la bu la yéene woon def la benn bu bon benn boobu day mel ni lu soppeeku fukk yu dalandoo ci kawam sunguf la soo xamante ni protection bi ci nekk kenn xamul dayo bi nu mu toll waaye nag bëriwut yéena ko gisandoo képp koo xam ne te woo na ci mën naa woote ci numéro bi nga xam ne moom ngay seen 77 335 14 14 incha allahu la bu ko defee ñu livré la ci bala moo jeex yombul nag te bëriwut waaye nag alhamdulilah képp koo xamante ni sa wërsëg mi ngi ci di nga ko jot jërë ngeen jëf.